thème bu màgg lool muy ashaykhul xadim arabbaniyul azam sëriñ Tuuba ni mu doonee nitub yàlla gu màgg tomb bi ñi tur limu màggee li ëmb lay magge ndax seigne touba jenn yitte rek lañ ko xamé wala mom la mas am muy boromam lum laal lu nekk rek lu koy jotale digënté ak boromam la waaye ki ñu wara defal waxtaan wi tay muy sëriñ Ahmadou diku ñepp xam ci waar wi mooy jottali jàngalem sëñ Tuubaa ci anam nga gën a mat te gën a rafet yaakaar naa bu ñu ko tuddee dana néew ñu koy umpale ci jotaay bi kon du woo ñuy dugg di xamle mooy kan ndax mel na ne gët yi miin na ko te it dégg yi yaakaar naa ne war na koo miin bu baax a baax kon moom moo ñu war a defal waxtaan wi muy tomb bi nga xam ne mooy Serigne Touba ni mu doonee nitu yàlla bu màgg ni fa fas yéenee tëralee waxtaan wi nag mooy dafay tënk tomb bi rek ci diggante Serigne Touba ak borom mu mel ne day doon ab àggale ci tomb bu ko jiitu woon muy diggante Serigne Touba ak yonent bi ginnaaw bi mu jógee ci diggante Serigne Touba ak yonent bi kon day jàll ci diggante Serigne ak boromam. tomb yi mu tënk waxtaan wi nag ba ci njëkk mooy dana xamle baat yi nga xam ne moo tënk turu Maodo bi baat bu ci nekk Cheikhul Xadim mu taarif ko rabbani mooy lan mu taarif ko doo jàll nag ci biir Maodo bi wax ci tawxiitu sëñ Tubaa wéetal gi sëñ Tubaa wéetal boroomam jàll ci wax ci ubudiyatuhu moy don gimu mu jamu jaamu yàlla dem ba jeex tak ci jaamu yàlla dëggal gi mu dëggal ak yetu ci ak dundam ñettelu ñentelu tomb bi moy mahabbatuhu li rabbihi moy bëgg gimu mu bëgg yalla mom sëñ touba benen tomb bi moy suko waxtu yu maye moy liko yalla fayé nak ci wéetal gi mu ko wéetal ak jaamu gi mu ko jaamu ak bëgg gi mu ko bëgg tomb bi ci mujj mooy cant gi sëñ Tuubaa cant boroomam ci xéewal yi nga xam ne xéewale na ko ko ci fay yi ak ci may yi kon du ñu guddal tomb yooyu ci la sëñ Ahmadu war a jëmale waxtaan wi kon dañ koy bàyyi dalal ko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 bi nga xamne dañu taxaw ci liggéeyam bërëb bu sel bi wut ci murid yépp di liggéey liggéey bu am solo bu mucc ay bo xamne set na xol mourid yépp di leen ci ndokkeel di ñaan yalla mu nang ko te gën leen ci defal tawfiq ginaaw lolu niko Cheikh abdullah waxe waxtaan wi mooy ar rabbaniyul danañ jéem a xam ne baat yooyu lu muy wundu kan mooy ar kan mooy ar rabbani rububiya mooy lan ak luñ ci jublu doog a dugg nag ci sëriñ bi ni mu ko dunde ak la ca topp insha allahu taala du nu sori itam ci delluwaay yeeg kii ndax xëy na waxtu wi xat na te dañ ci waajal bari na jàppuñu sax dana ci xaj rabbaaniya boroom xam-xam yi niñ ko tegee bari na am na ñoo xam ne dañ ko jëmale ci wàllu xam-xam nike sayiduna qataada ak ku mel ne sayidna abdullah ibnu abbas mu jëmale ko ci fiq jàppe mooy ab faqih rek am ñu ko jàppe mooy ab aalim ni ke saïd ibnu ak ñeneen ak ñeneen am na ñoo xam ne rabbaaniya dañ koy jëmale ci wàllu tërbiya tërbiya ak jàngale ak defar nit waaye nag buñ ko waxee noonu li ci nit yàlla yi xaw a jublu moom lañ ci gën a jublu mooy diggante nit ki ak boroomam na mu koy dundee ak dox ba muy dox wuti ko ak la koy jëmmal ci dund ak njaam akub cofeel ak seey ci boroomam subhaanahu wa taala loolu lu mel noonu lañ ci jublu buñ ko waxee fii kon rabbaaniya tur woowu li muy tekki mooy askan gi ñuy askan jaam bi ci boroomam mu di ko jaamu ci xam ak cofeel ak wéetal ko bu demee nag ba wërlu melo yooyu ñu wax suñu borom day sotti ci moom ak leeram goo xam ni da koy def mu jikkoo jikkooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam leeru rasulullahi sallallahu alayhi wa itam ne ci moom ci jëmmam bu seeyee nag ànd ak leer boobu seey nag ci biir leer yooyu lañ ko tudde rabbaani mel ni ak weñ buñ ko tegagul ca xal ya day mel na mel buñ ko dugalee nag ci biir xal yi ba mu lakk ba xonq ba mënatoo ko xàmme xal yi mu mujj nag di xal daanaka dañ rabba nga xam dañ koy askan ci xal ya donte du xal itam ci cosaanam dëgg-dëgg bu dee ar rabb nag mooy sunu borom tabaraka wa taala mi nga xamne mo sak lepp mom ñepp boole katan yep di ko xamni ni kàttanam yëmut fenn nga xamne xamal nañu bopam ci bir alquran karim ci bërëb yu bare bare bare wax na qul huwa ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ben bour la bo xamni moom kese mooy buur moo sàkk lépp jógewul ci dara te amul kenn koo xam ne itam bokk nga ak moom ci dara ci beneen bërëb wax na ne huwa allahu alladi la ilaha illa huwa aalimu alxaybi walshahada huwa arrahmanu arrahim هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم دي buur بيغا خامني مبولم ne كاتان موكو داجال moo خام خام موكو داجال dara tëwu ko moom lépp sàkk lépp xam lépp man lépp mboolem tedd nga itam ci moom la daje wax na ko ci alxuraan ci anam yu bare bare bare sëriñ bu mag bi itam leeral na nu koo kii mooy kan wax na nu ne laa rabba gayruhu wa an siwaahu gani lahu gani lahu ftaqara man adahu buur la boo xam ne kenn melut ni moom te soxlaalul kenn dara te ñépp a ko aajowoo سرين بي wax نكو تي ci bërëb باري باري baree bari أن إلهنا الإله الأحد الصمد المكرم الملتحد ولا مكرم المكرم الملتحد ولا إله غيره ولا شبيه له ولا له نظير يا نبي وجل عن صاحبة وولد ووالد وجسد وخلد وعن مشارك تعالى في الفعال وغيره طوبى لمدمن فعل الأول الآخر من غير ابتداء ولا انتهاء ومكرم لذي اهتداء muy dem mooy suñu borom buur la boo xam ni moom moo maanaam mosu amul dom kenn du ko askan itam ci melay doomu adamay ak li am ak ñak bokkut ak ñoom dara itam mooy de mooy mooy def lépp itam mooy dogal lépp itam mooy buur bu kawe bu sell bi nga xam ne ku lu waaye am moo la ko jox te jamono tënk ko bërëb tënk ko jógewul ci dara dara mënu koo gaw itam ba tax na sëriñ bi dara wax ne subhaana man idraakuhu muxaalu wala ajsu an idrakil kamal kon kooku ci gàttal mooy suñu borom bi nga xam mi nga xam ne mooy benn ci baat yi nga xam ne dañ ko waxtaane daa ne rabbaani mooy sëriñ bi diggam ak boromam subhanahu wa taala kon wax nañ liñ ci jublu ci diggante boob yi ci gàttal rek mooy dund gi mu dund li ñuy wax ubodiya ak mahabba ak tawxiit ak jaamu yàlla ni mu ko defee ak bàyyee boppam sunu borom tabaraka wa taala ak maani yooyu yëpp danañ ci ñëw diggante boobu yi lañuy la ñuy nu jeexale taarif yi ci xamle sëriñ bi nag mooy kan sëriñ bu mag bi nag moom it xamle nañ ko ba tey ci bërëb bii du ko ñépp a ko xam mooy borom dund gu barkeel googee nga xam ne mi ngi feeñ ci bisu fukki fan ak juróom ci wéru shaban di bis bo xamni nit yàlla yépp dañoo passé da ñaan ci lu ñuy tudde ak tajallil azam ilaahi bi tajallil a'zam fi nisf min saabanin almukarrami an nakshifan min albala ma naalamu bilfadli walmanni wa ma la naalamu cheikh maal ay nee ni ca naatul bidaayaat gis nañ ko ba mu indee ñaanu nisfu saxabaan bi mu ñaan ci tajal lii buy am mooy leerug yàlla muy wàcc ci guddi googu ndax nit yàlla yépp dañ cee mas dañ cee mas di ñaan di ko bàyyi xel di ko dundal guddi googu ndax am na leer bu ci wàcc ca naatul bidaayat ba mu wax dafa wax ne ilaahi bi tajalli al aadami fii leylati nisfi min saxabaan al mukarrami allati yufraqu fiha kullu amrin hakim muy ñaar nisfu amal kon dajale azam boobu yi di xew ci guddi googu yi ak bis boobu yi nga xam ne ci la sëriñ bi feeñ nit yàlla yépp yàgg koo màggal yàgg ñaan ci barkeb leer googu yi leer googu yi gàttal gi mooy amul leer bu gën a kawe ci li nu xam bu wàcc ci bis boobu yi ci guddi googu yi gudul leeru sëriñ bi sëriñ Tuubaa leeru kese la woon wax na ne azhaba man kulliyati anaara suñu borom jom moo leeral moo ko def mu dig leer wax ne nu nawara zahiri wa batini jamil kulliyati ilayhi bil xusna tamil wax ne leeru kese la woon moom sëriñ bi wax na sax ne du leeru xol ak biir rek biti gi itam saayir ak baatin la ni wax ne ah أعظمه للقاد في أغراري وجثتي نور كالأغراري mboolem yi bàyyi ko ci jëmmam ju sell jëmmi jëmm ji ak ruuxam gu sell gi ak xol ba ak mbooleem yi nga xam ne moo mooy bàyyikoo ci moom ci ay aaraat lépp ak leer la nawwarta qalbi thaabitan muwaxida ak li nga xam ne bayyana li man laa yazaalu faatira tab tabyina haadin nawwal al xawaatira ba ca yii toq ci xelama man lépp sëñ bi leer la jëmmam leer la ay jëfam leer la yi toq ci xelam lépp ak lu bàyyi ko ci moom lépp ak leer la moo tax leer bu leerug sëriñ boobu rek mooy li feeñ ci bis boobu kooku kon mooy si Ahmadu Bamba bi nga xam ne suñu borom ko waajal waajalal ko jëmmam waajalal ko jamono ji muy feeñ ak bërëb yi muy feeñ mu nekk koo xam ne dafa wax ne sunu borom ci boppam moo ko yaral boppam rabbaani al xayu alladi laysa yamut sunu borom moo ko yaral boppam tërbi ak sunu borom la am loolu li ñuy li ñuy tekki mooy dafa feeñ rek meloy mbaax ak meloy njub ak meloy meloy sell yépp daje ci moom rabbaani an naafiu al wahaabu ashkuruhu wax na ba tey bay ju mel noonu te tërbiyeeg suñu borom daa wuuteeg tërbiyeeg keneen daana wax sax ne tërbiyetul xayil alladi laysa yamut laysa ka tërbiyeti xayil sa yamut suñu borom ak tërbiyaam day matale day mat day ànd ak jag ak jubbanti boo xam ni day yomb lool ci borom kon kooki mooy sëriñ bi muy koo xam ni bi mu feeñee rek dafa feeñ rek mën nañ ne seey ci boroomam subhanahu wa taala dooga wuti yàlla bëtam musu koo teg wala mu jëmale ko ci lenn bu may suñu borom tabaraka wa taala li Cheikh Mouhamadul Bachir wax ne xuliqa rabbaniyan laa yaarifu l axyaar ndax axyaar mooy jamu xayr xayru daali musu koo xam musu koo dund dafa feeñ rek di ab rabbaani yi ñuy waxtaan garabu tawxiid muy wéetal suñu borom dafa feeñ rek mu daldi sax ci xolam daldi gaaw a jeb bi meññi nag muy jëmm joo xam ne mosul def lenn lu ko amul njariñ ba mu feeñee itam la dogal lépp lu may suñu borom daana wax ca njëlbeenam ne lépp loo xam ne mbir mo xamni wessul aduna ji dem alakhirah mbir momé du lu am solo fi man mu nek ko xamni ci jaamu am waxtan nañ ko ba tay waye danga ci gis yu yeen yo xamni ci mom rek nga ko gis moy jëm yo xamni jamono yi mu doon dund ak lamuy metti metti ak jafé jafé yu amone yépp ak àll bi mu nekkon nga xamni ne melutoon nii booba ak lool lepp benn yoon la masa a tiim ci dundam te la ci gën a yéemu mooy julli gune ak njàpp boppam la daan la ko daa defal yàlla nattoo woon ko ay xeeti ay góom ak yu ñu demee nga xam ne danaa am ci jëmm ji waaye loolu dawu ko tee tiim ñu wax masa gi nga xam ne fuqaa yu mayee nañ ko ci yu ma noonu bu la dalee te loolu da ko daa dal lu bare bari dawu ko def fi ne dawut bu ko daree rek ba sëñ Basiir wax na ne fekke nañ muy jàpp di bés ak taab boo xam ne da ko fekke woon deret ji di génn ak dëtt ji mettit bi ñi ko fekke sax mu metti ci ñoom bañ di ko ci yërëm waaye muy wax ne suñu borom muy wax taab bi ne ko yow maa ngi yow ay yàq yàlla danoo sant nu war a jàpp war a julli kon nag lu mën a xew xaw ma def moo xam nga deretal wala lu la neex yaa yaa xam di jëmm joo xam ni mësula julli ci dundam lu may ci njël gënu waxtu suñ bisul nee na am na benn naaru gànnaar bu mas a nekkal boo xam ni waxtu bi daa jot jamonoy tàngoor ak bëccëg nee na naar bi di ko wax xaar ba ci kanam mu ne ko déedéet man fi ndigal li agsi rek damaa bëgg foofee laa koy daal defe di koo xam ni daraa wax ne man du ma jëfandikoo ay seel du seel diine du seeli àll seede diine nee na mooy mel jàpp nga julli ci ñaari ñaari ñaari julli yu bokkul tisbaar ak takkusaan wala timis ak gee nekkoon koo xam daa dëkki woon koor daanaka te ak dogam amut solo li muy dogee daanaka wisaal la daan def guddi yi itam da ko daa dundal guddi gépp mooy ki nga xam ne mësula am guddi gum deful xiyaamu layl te day tàmbalee moom ca gee ba fajar xiyaamu layl noonu la سيدي بشير ملال كو تي نهاره صائم وليله قائم لا يفطر عن الذكر والتلاوه آناء الليل واطراف النهار رغبته واحده وغرضه واحد وهو رضا الله تعالى ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم دي جيم جو خامني بيتيغام ييب كور لا غوديم ييب تاخاو دي دوندال غودي دا موسولا دوك تي تود يالا tudd yàlla moom da cee da cee sosu woon ne daa bokkoon ci moom dañ ko ko mooñaale moom mosula juyoog ndigalul suñu borom sat na ci yàlla ba tey di wax ne allahu tahara fuaadi wal jasad min kulli isyaani ak mooy yàlla ak mooy ndigalam loolu moom yàlla da ko ci musal waxuma la lu mel noonu sax waaye lam alfu maa lam yu fi mooy lu amul njariñ lu ko amulul njariñ njariñul ëllëg ak diggam borom mus ci mus ko jóg jikkoom itam mën nañ koo gàttal ci ne mooy jëmm joo xam ne xol bu set la yor bu sell bu yéene ñépp jàmm yan wi fuaadil xayra lil xalaaiqi maa ah, nee man sama xol daa yéene jàmm mbindeef yépp du nit ñi rek de ci doa mooy jëmm joo xam ne musta rey aw mellantaan xisa boobu ñuy dégg ñu naan dafa dóor tubaab bi kii bi booba tubaab bi da ko fekk muy ñaan mu jël xaalis bu fekk dajale nañ ko mu xaw bari tuuti mu teg ko ci loxoom wax ko ci ay wax mu sànni ko nag far mu dal tubaab bi waaye du cee gën a ko jublu woon a dóor moom sunu boroom ci moom moo ko tegtal boppam dalaltanaa bika alayka yaa raqib dallani allahu alayhi fa araf qalbi bihi yàlla ko xëccal boppam tegtal ko boppam wax na ci njëlbeenam ci xasida yu njëkk yaakaar naa ne wax ne wa kuntu qablu xaaifan mudtarra munjasiban anil baraya turra multajian ilayka bilmuxtaari bi afdalil xidami dastidaari fa quttani bihi ilayka dama nekkoon jëmm ju koo xam ni dama bari lool tiitaange waaye li muy ragal lépp jenn benn ragal la mooy suñu borom rek la ragal loru lool itam jëm ci suñ borom bàyyi mbindéef yépp wut si la wéeru ci yow nga wommat ma nag jaare ko ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maanaam suñ borom moo ko wommatal boppam léppam suñ borom moo koy wommat di ko xëcc yaqulu nafsi wa hawaaya la am ay bëgg-bëggam nag ak yi toq ci xelam yépp suñ borom euh, da ko ci xëccee waaye nag da koo tegtal xam nga suñu borom moom daa am ab jaaruwaay muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax ne yaqulu ni llahu ila muhammadin wa qaala li muhammadun ni samani sayyidina muhammadin wax na fa mu ko jaarale te mooy dallani allahu ala muhammadin wa qaala li ahmadu dikra samani alquran la ko la ko la ko jaarale kon yooyu ay waxin la yoo xam ni boo déggee wenn bay ci yooyu rek yem ca man maanaam ñu du mat moo tax ci cosaan kenn rek moo ko xëcc muy suñu borom tabaraka wa taala mu wax ne dalaltana bika alayka yaa raqib yaa raqib dallani allahu ala illahi kama dallani alladi alayhi wax ne kon suñu borom moo ko xëcc waaye suñu borom daa am yoon muy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam suñu tamit itam ci alquran la ko jaarale mooy jëm fi bàyyi muy jëmm joo xam ni mbooleem ñu jamono te ñuy ay borom yi xam-xam te jonjoog moom yéem nañ ko mën naa ci jox misaal baabul Cheikh Sidiya من خم ñu borom xam bu mag di mu hadith bu mag di usuli bu شهد الطوائف اجمعون بكونه برا كريما قالتا اواها ممن يرى نفع الانام فريده في دهره والذاكرين الله

ibnu mualla lu mel non la wax wax ne ko ala ayuha alqutbu ladhi la yaququhu an illahi kawn anam dar mun munta xajamal digam ak borom subhanahu wa taala fofu la ñuy dugge kon ci tomb bi jëk té moy ni mu wéetale sun borom kon mom dafa fay rek eh, di dundu dafa fay ci njaboot goo xam ne ñu gëm yalla lañ di ay nit yalla yu mag waajuram cheikh seigne Mamour Alisali di khutbu bo xamni ñepp xamone nañ ko mom sëñ bi sax seeral na ko xutbaani yoboon kon ci njaboot gogu la feñ waaye bu mu itam mom dafa feñ rek dal di deggul borom suñu borom terale ko mu téla am ku ngëm gu deggal gu mat ci sun borom da wax na ne sun borom jox moko ko sa tawxid laqanani llahu lana ilaahu tawhid la ilaha illa allah maanaam wéetal sun borom da wax ne moy sama diine diine tawxiidu ilaahi naasi maanaam wéetal suñu borom mooy diineem diine tawxiidu ilaahi bittibaa man qaada lii li rabbihi bi tuuli baa diine imaanu bidil wujoodi na ngëm yàlla ak nañ ko war a gëme lépp loolu moom da cee feeñ nekkoon ci sax ci doon ko dund mu doon léppam itam dana wax sax ne man sama fàgguteef yépp weesuwu tawxid kas bi tawxidu ilahiya al jalil ngànnaay li mu doon xeexe itam dafa wax ne mooy wéetal suñu borom ngànnaayu tawxid sayfi alladi yafri tulaaman sallathu tawxiduhu ba dara àgg sax ci wax ne tawxid moom bu amee borom man maa ko moom mallakani tawxida rabbil ahad maanaam ci moom la fekk baax ku ko amit xëy na ci moom nga koy roy moo tax baatub laa ilaha illa gi dañ ko gis ci mbindam mooy waxam moom qawliya laa ilaha illa allahu muhammadun muhammadun rasulu min mawlaahu mu ne leer gi nga xam ne moom lay niitoo làmp boobu mooy leeru maanaam laa ilaha illa allah dawiya laa ilaha illa allahu yi mu ne itam bërëb bi tawxid la لخني انا الى موادعي يقول له صفاء لا اله الا الله معنى برم يبن يلا دا فاي سوت ليرو تيلتك لا اله الا الله باتخنا ان باخ دا فاي يوم نانغو دا فاي يوم دا فا ناب تي باركل تي نيه خا امي دار برم يب موتاخ مودا واخني فزتو بلا اله الا الله xolam lenn rek moo ko fees mooy wéetal suñu borom lam yalxu qalbi gayru tawxidil malik kulli muwaxidun lidil mulooki léppam daa maase di wéetal suñu borom tabaraka wa taala te suñ sëñ bi maanaam gëdd gi mu jox suñu borom màggal gi mu doon màggal suñu borom kenn fekk ko ci dafa am war ma ju rëy yu mu ëmbaloon suñu borom tabaraka wa taala joo xam nit ki mën naa gëm te du ca àgg waaw loolu mooy lu mel ni wax ne azamtu wajhallahi min aami asas xam ne noonu la doon dunde te ni mu ko warmaale lépp suñ borom lay lay warmaal ak lépp lu taq ci moom moo tax jëmmi boole suñu borom dara li wax bokkaale loolu moom mësta bokk ci mbiram mësu ko xam mësu ko dund mësu ko nangu itam moom danaa wax ne uwaxidullaha wa lastu ushriku shay'an bihi xiina siwaay yushriku jamono jëm dund ñi doon bokkaale yàlla dañoo bari rawatina tubaab yi ko jàppoon dëkk ci bokkaale suñu borom waaye mënutoon a xajoo bokkaale suñu borom ne léeg-léeg gis nga mu wax ne tuubu lahu watruku taslisa wal adada maanaam yéen lu mën xew lim bi dal mom ay yàlla benen ñaar yàlla ñet yoy mom den ko war tek fi suuf mom loolu wax nañ ko ba tey ba mu nekkee seen biir mom dara wax ne man dama duggul kuy boole yàlla dara farahani kawnu ilahi alwahida wala uhibbu mushrikan aw jahida motax dafa dañtal won ci lépp lo xamni moy boole suñu borom dara te suñu borom sax moko ci setal mom barra ani alxaqu min alishrak moom dafa sellaloon suñu borom dababtu li gayrillaahi maa lam yaliq bihi waaw lépp loo xam ne yëlul ci suñu borom daal daqal naa ko ko ba du ko jege mukk tanzih boobu ci la nekkoon moo tax diineem daray boole yàlla boole yàlla dara bu nekku ci wax na ne haraba kufrun maa shirkin wa fusuq li gayri diini maanaam bokkaale day daw sama diine moo tax noonu tawxiid di gën a kawe ci la nekk sëñ bi daal di wax ndax dina sëñ bi nekkoon rek ci la nekk waaw sëñ bi rasul lay sax nanguwul nga boole kook suñu borom maanaam rasul lay da nga koy jox cëram ba ko yàlla jox jox sunu borom danaa wax ne man shakka fi kawni ibni abdillahi abdan rasulan fali naarin yanqalib rasul lay sax bu du nangu nga jox ko loo xam ne suñu borom a ko moom doon na nag ci kaw ay teggin nag rasul lay bul jàpp ne ñàkk na dara moo tax sëñ bi ni mi wax do du nek di wax ci rasul lay man nek da daa amul léeg da amul le yonent mom moom ñëkku dara mom ndax waye nak lam koy jox lépp nak du doon momelu sun borom tabaraku taala ndax sëñ bi dara wax ne jëmmi boole yàlla ak dara shirk dara wax ne sawara la fa shirku fil xayraati mithla naari wa kullu dhanbin gayri shirkin yuxfaru والشرك لا يغفر لا يكفر يعني الشرك موم سون بوروم دوكو دوكو دوكو جيغال الا بتوبه النصوح موي تاخ ني جيغال ها ومن يثلث فريدا مالكا سمدا فجاهل كي بوكال يالا كوكو دا دا رير دا اومبل موتاخ سيني صاد دا يقين يل يقين ان اشرك به شيئا فكل مشرك لم ينتبه انا من دا ما ام توفيق ني دار دو مكو بولك سون بروم ناخ مشرك كي بولي يالك دار كوكو دا خمول لي خاو لم ينتبه موي دا خمول لي خاو نيكو كو باخ كي واخ شيخ محمود منتقى motax tubab yi mu delon te xamuñu li xew yena len ba tay ci bëgg ñu xam li xew neena nabahakum wa karrar wa karrar at-tanbiha وزدتم الإشراك والتشبيه الله جل أحد الصمد الذي هو الإله وحنا باتاي يلين باتاي نين دي غنا وي رك ديكو بولي موم سونو بوروم اك يينين لم يكن مولودا ولا بوالد ولم يكن كفا له في خالد موتا مولو كين رك لا نجي سونو توبا ديكو ديف موي مشرك كيغا خاندي بولي يالا غرا دوني واخنا لين كو اوفين لقوم ثلثوا يا احد ثلثوك يا احد taasan liman yanmi ila llahi al ahad alsamadi man jaxat tawaludan fa qul huwa allahu ahad tasrifuhu anni min min yowmi al lahu tabban lahu uffin lahu waylun lahu waylun lahu tabban lahu moom kenn ñëpp la yéene jàmm gis nga koo xam daal ñi nekkoon ci wetam tubaab yooyu di di bokkaale suñu borom di ko wax di wax ñaari yàlla ak ñett ak gis nga lim daa wax moo tax jihaad xeex bi muy xeex itam ci jihaad foofu rek la ko wanale mooy boole gi ñu boole suñu borom ak dara nga xam ne dafa xam ne man damay jihaad ak ñoom ci def ay xasida yoo xam ni xasida yi am xasida yoo xam ne dañuy dañuy am ab liggéey zintu makatiba te duumu raasida kulla muaadib xasida goo xam ni yitteem mooy fuklu ñi noonu yàlla di ko booleeg dara ngir di leen indi li jafe-jafe الله أن زنت قصيدة مجاهدا لدى من نصب لله حمقا ولدا موتا مست مسلا اك نيغا خامني دانيي بولا يالا دارا ولا اداهن ولشهد باني لا اداهن مشركا خليلا حبيبا للذي كرم الجنب واخنا ني قتلت من اليك ينسب الولد انا كي خاني wax naan yow am nga doom yow suñu borom tabaraka wa taala kooku faat naa ko léeg sax mu ne dabaxtu dabaxtu xulfan thalathu yawma ah bisu bisu dibéer bii daal faat naa ci benn ay boo xam ne faat gi nag faatu maanaa la suñ tubaab mësta lor kenn ci loxoom ak ci zahir waaw lañ tabaxoon itam tabax bi yépp di tabaxi yi nee na màbb naa ko hadamtu bin yëtal hadamtu bin yëta kufurin wa fusuuq maa bina shirkin loolu wax na ko lu bare bare waaye nag mësta nangu ab jullit nga di ko jàppe nga di ko génn ci diine ji ngir ay kasaw kasaw wax na ne wa xaramu takfira da istiqbaali li dambi fal gufraanu da istiqbaal loolu am na wax na ne am na jëmm ju ma sa ñëw ci moom indil ko benn waaye ne ko kii de sama jaama waaye ne fi sëñ bi dana bërit jug tàmbalee julli moom ay rakkaat di julli julli julli julli julli julli lu doog a si ci moom ne ko ah, kii de bu fekkee yaa moom na nga xam ne yaa boole moom ndax man kat maa kii noo bokk borom nga xam ne moom dégg gi mu dégg baat boobu daal jóg ngir jéggalu suñu borom moom ci baat bi julli ba suñu borom jéggal ko <laughs> te moom suñu borom du ko topp dara waaw ah, moo tax suñu boroom cër bu rëy la ko joxoon wax nañ ne nit mas naa wax fi wetam ne yàlla rek kay buur mu ne ko yàlla kenn du ko rekk yàlla kenn du ko rekk dangay wax yàlla daal la fi nekk yàlla daal la fi nekk am na naar gànnaar bu ko mas a laaj ne ko bi ngay nekkee ci gaal gi te nag wi wut si la loo yëg booba mu ne ko la man jaam laa boo xam ne bu dara toqee ci sama xel lu may yàlla rek ma am ko dara mës a toq ci man lu ma yàlla wax ne li ko tee mu daa denc ci poos daraa wax ne poos boo ci dencee diggante ba nga cay dem sa xel dana ne ci lu yàlla motax musta mësta denc ci ci ci jiba Cheikh Abdallah daane wax ne len rek nga koy jox mu nangu ko moy alquran karim motax tawhid tawxid ju sell jooji ci la serigne bi nekkoon tawhid ñaari tawhid yep nak tawhidul عارفين التوحيد المتكلمين يب yépp نكو غير غاتال رك داي rek سي ñëw نياارل بي موي عبوديه te ñetti tomb la mooy ibaada ak ubudiya ak ubudatu mooy jaamu yàlla gi nga xam ne cër yee koy def ak ya nga xam ne xol bee koy def nag jaamu yàlla cër yi moom moom wax naa léegi luy tegtale ne ci la feeñ ci la sosu ci la màgg dañ ko mooñaaleeg moom ci njëlbeen soxna maam jaara wax na ne sëñ Basiru neen daanako ko nettali ne ko gaa ñu baax ñi day ñoom dafa bokk seen aada dundal guddi gi xiyaamu leen waaye nee na booba la tàmbali te demagul ca daara ja de booba demagul ca daara ja jàng booba la tàmbali bu guddee day dem ca jàkka ja wala fi jullikaayu soxna maam jaara nekk fa taxaw ngir bëgg a dundal ko gi boobee la ko tàmbali sama mbokk mu baax sëñ abdullahi jaxumpa damaa nettali ne dafa dégg sëñ isxaaq mbakke mu wax ne euh, dunduk Serigne Touba day jëmmal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muy baat bu wér man lool muy dunduk Serigne Touba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wax na ne iyyaka a'budu wa asta'inu wa innahu al mabud wal mu'in iyyaka na'budu wa nasta'inu fa innaka al mabud wal mu'in ay bari yu bari la ko waxee maanaam Serigne Touba moy ko xani kenn rek la doon jaam muy sunu borom tabaraka taala wa ta'ala walastu a'budu dawaman ghayraka andamul dul kenen maanaam jaamu yàlla mooy diineem diini ya ibadatu ilahi naasi loolu la wax te léppam moo daa maase di jaamu yàlla man léppam ak jaamu la yaabudu rabbi lil jinaani kulli kulliyati aabidatun lillahi bërëb bu mase ne itam jaamu la fa suñu borom abadtu rabbi inda man lam yaabuda wa laysa yaabudu maanaam gabon gee mu nekkoon nga xam ne moom ba fay dem moom rek moo fa di julli ci réew ma yépp gis nga nam fa nekke ci jaamu suñu borom ak di jàmmarloog tubaab yi di bañ ñu boole yàlla ak bañ na ko ba sax bërëbam yépp bërëbi jaamu yàlla la wajaal buyuti kullaha masajida ijaal buyuti rabbi ma masajidi saadatan li raakiin wa saajidi sama bërëb yi daal na neex ci képp koo xam ne dafay jaamu yàlla di rukkoo ga sujjoot yàlla kooku yàlla na bërëb yi neex ci moom xam nga loolu kooku ñaan am na solo دين كان يبت الله يا أيها الناس عبدو ربكم بما به خير ورجاءكم مرة جمي ما يعلمهم مسكو نوم دراوة وحنا بلتوك مك نتشي ما يعلم وبالمعاصي لا تطع مخلوقا دراوة وحنا ولي يوسف برام فوق فك يتم دونك كوي ما يعلم بطانا بل بلتوك نتشي ما يعلم karaamatul wali an laa yaasiya karaama gi gën a rëy mooy bañ a mooy yàlla fii zahirin wa batin ak na sax wax ne defar naa xasida yoo xam ni xam nga xasida nag daay wax ne jëmm jii nga tiim nii mooy tekki jëmmi xasida nga nga xam mbir mu ne am na jëmm wa wajadu ma amilu xaadiran amal bi dafa am julli da ko yow boo duggee sa bàmmeel julli day taxaw nii asaka taxaw nii koor loolu yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa yooyu ay jëmm lañ dégg nga ilayhi yasaadul kalimu xam nga kalim bi ginnaaw day yéeg ak wàcc kooku jëmm la man xasida gi daa am jëmmi boppam joo xam ne jëm xasida gi ngay tiim jooje lay jëmm xasida yooyee nag neen defar naa ci yoo xam ni seen yitte mooy képp koo xam ne nekkoo ci jaamu yàlla ñuy jëflante yow ci loo xam ne da lay jur aw metit ak coona ak ngay jooy waxtu ne <laughs> lu lay jooy loo zintu makatiba taduumu abada mbubb mbubkiyeetan man rabbahu lam yaabuda waye lam yaaw moy ko xamne ne musula jaamu yalla waxu na ko xamne da nga day jaam bam yag nga tayal wala waye ko xamne daal musula jaamu yalla te musul nek lu neex yalla ñen defal na xasida yo xam ne rek lañu ñu kon lolu moy ibada ubudiyya nak moy nek gi nek di abdullah di jaamu yàlla boo xam ne suñu borom sekk ko kenn lolu mo doon mas di yittem wax na ne marami ya kawni abdaman yaghfirul yaxfirul ithba càkkuteefu yëpp lolu la wa minhu atlubu kawniyal abda lillaahi muraadiya kawni abda rabbi xadiima man bihi qaadani bu suñu borom tarale ko nag muy abdullahi di jaamub yàlla boo xam ne suñu borom seq ko kenn abdullahi dinaa wax ne yombut bari na ñoo xam ne ar razaq la ñuy jaamu mooy yàlla mi yore wërsëg yi ak yàlla mi yor ajana nga xam ne bu bu ne woon bàyyi naa ajana yow nga bàyyi jaamu bi moom ndax loo tax ngay ngay ngay jëf ngay jëf waaye abdullahi koo xam ni allahu moko yilif mom ko te cheikh ko ken lolou mo jafe koku wa inna lamma qama abdullahi ci yonente bi la sun borom waxon ak sayyidna isa kesse ci alquran mara tawfiq ji amne sun borom ci moko tudde abdullahi sammaytani qat'an bi abdika alkhadim jaaltani abdal ilahi wa khadim rasulika loli nak nek gim nek di jamu yàlla seereloo na ko ñëpp suñ diwaa daana wax léeg-léeg ne yéen mbindeef yi laay waxal tey mbindeef yépp yaa jumlatal xalqi shhadu lii yowma fiihi yaxuusu lmujrimuuna lawma bi kawniya daarini abdallahi xadima abdihi ibni abdillahi kulli muslimin wa muslima mubrida kulli mujrimin wa mujrima mbindeef yépp maa ngi sàkku ci yéen yow man xiyaam bu ñu fa demee na ngeen ma seeral ne man kat abdullahi rek laa mas ne mooy jaamu yàlla seeraloo na ko sax tubaab yi وحنا إني أخاطب النصارى ترى في أرضهم لمالك مضطرا تيقنوا بأنني لله عبد خديم لرسول الله وأنني ما زلت ذا تبرؤ من كل من بالكفر ذو تجرؤ نصراني ما سين سوف واي كان رك لا يتوى مسلم برون تبارك وتعالى ما نجي بغنك نجي نسير الماء تخمنا من جامو بيالا لا تدنجل ناتي مولم بودي كفر أغلقنك géejug maa yomb sax seeraloo na ko ko walishhad bi kaw ni abda wa kaw ni xadima almustafa maa mu daa wax ne diineem moom mooy nekk gi mu nekk di abdullahi di jaamub yàlla boo xam ne yàlla seq ko kenn diini ye kaw ni abda rabbi wa xadim loolu wax na ko ci bërëb yu bëri daana wax ne sax ne sama daraja mooy darajati kawni ya abdallahi nekk gi ma nekk di jaamu yàlla deewul nangu ku njort ne leneen la maanaam turam wi ko gënoon neex mooy abdullahi wa xadimu rasuli man danna anni gayru abdillahi wa gayru xaadimi nabi fasaahi ku ma jàppe keneen yow juum nga wax ne mom ñépp ko xam bindé fi xam nañ ko daral wara anni lahu abdun habib mi def xam waye malaika yi tam xam nañ ko laqad tabayyana lada al kawni ya abdullah lil iflaki lil aflaaki malaika xam nañ ne man abdullah la jamu yàlla la bo xam yalla sheikh ma ken muqarraboon yi tam xam nañ ko laqad tabayyana lada al muqarrabin ya abdal malik al haqq al mubin bu ko defee ubudiya boobu nag njaam goo gi nga xam ne njaam gu la gu neex xam nga toroxlul sab soppe loolu loolu dañ koy tuddee toroxlu rek baat bi rek mooy nuru ak njaam nii waaye mooy li gën a neex ci kaw suuf tey boo amoon tawféex yi sëñ bi gaa yi nga xam ne sëñ Tuubaa rek lañ bëgg boo amoon tawféex yow dajeeg moom man koo liggéeyal duutu yëgu mettit yow toroxlu ak woyoflu gi ngay woyoflu googu ak neexitu biir moo ci ne loolu la ñuy wax ubodiya maanaam ibaadatu cër yee ko ubodiya mbirum xol la ubudiya nag fi mu feeñee ci mbirum sëñ bi mën naa feeñ ci maanaam wusuuq bihi maanaam mooy gi mu mooy ci suñu borom loolu ci min madahiru ubudiya la bokk te loolu mooy lu mel ni wax wathiqtu billahi taala abdan lahu loolu wax na ko ba tey wathiqtu bi rabbil arsh dil afi wal dil juudi wal afi ak ñaan masalan ñaan xam nga ubudiya fi mu feeñe dëgg-dëgg mooy ñaan gi mu doon ñaan suñu borom nga xam ne moom yàlla suñu borom rekk lay ñaan dana wax ne ida massani durrun aw yaxtajtu aduhu duaan xafiyan baadama leylu qad nee na lu ma dal rek ak lu mën doon wala ma am jenn yitte nee suñu borom laay woo ñaan ko ñaan koo xam ni gu sell doon bu nëbbu damay bàyyi ba wéet rek wéet moom bu ne ko fa wax na ne naadaytuhu jalla la daa unaasi taatuhum isyaanu rabbinnaasi woo naa ko ba woo ko ca bërëb yoo xam ca bërëb boo xam ni gaa ña fa nekkoon seen topp yàlla gépp mooy di ko moy gis nga ba muy ba muy gaañ ca jeewal dañ ko wooye tubaab yu doy waar yi nga xam ne moom boobu moom lu ne mën nañ koo def te du mujj fenn ñu woo ko mu war a génn këram ñu nar koo génn réew mi te waxu waxuñu ku fo jëm ci togn lépp ci togn tooñ zalamtumul abd alladhi la yamtaqim li nafsi akhrajtumuhu min diyarihi bila haqqin manam difu len dara ñu woko way waaye bami jamar la ñom te boba mom kese la tuba bi ànd ak ay soldaar ak seeni fital ak yëf ay gis nga doo xam ne naadaytuhu bi ya wali ya nasir du non la kafaytani iblisa inda jeewali maanaam sun borom rek lay woo suñu borom moom yi nag da ne moom kese laay tàllal loxo waaw ilayka yaa xayra wahaabin madattu yadi sama loxo yow rek laa ba tàll te xam naa ne sa buntu du tëje wa baabullaahi lam yakun murtaja du ma tàllal keneen ku ma yow loxo katabtu li shukri anni laa amuddu yadi illa li man lam yakun kufan lahu ahad waaw dara wax ne sama yéene mooy fa suma yéenee tàllal loxo keneen ku may suñu borom na nawaytu anni laa amuddu li ahad si waaka sarmadan yedey yaa ahad fu su ma yéenee tàllal sama loxo njëriñ ji bi mu fi nekkee li ko teewoon a ñëw ci tubaab bii li ko doon teewoon a seet si ñëw ci bërëbam bu sell bii nga xam ne moom la moo ko gënal ci bërëb yi du woon dara lu may nanguloon a ñaan tubaab yi ñëw fi gis nañ leetar boo xam ne mi ngi ci eh, mi ngi ci téere yi ñu bari teg nañ seen bët kili ay mbokkam yu baree bari ak kilifa yu bari signé ko doon ko ñaanal tubaab bi ngir ñu may ko mu ñëw mu ñëw Touba te boobu sëñ bu ñaanoon tubaab yi may nañ ko dañ ko may ay ginnaaw sëñ bi nungu tañaan tubaab yi ñëwet tunguñ ko may loolu rek moo ko fi teewoon a ñëw moo tax dana wax ne man maanaam tàllal keneen loxo loolu koor laa ko def damaa woor ci bàyyi tàllal loxo keneen ku may ku may suñu borom yaa rabbi inni badattul yawma yadi ilayka wa arumu sawma an maddiha ila siwaaka dalaa wax ne talal loxo keneen ku may sun borom lolu ak ñakum xel la ko tege la ko tek dama jéglu ci baat bi lim wax ne maddu yadi li ghayr rabbi al ak li rabbi ghayr rabbi al akram ma al wasilati lahu al muhtaram azunnuhu fi lbaxri waqta gurbati xumqan léeg-léeg mu ne junun maddu yadi li ghayrihi indi junun anam ñakum xel la ak ñak ànd ak sago لالا من الضلال اغرير لا مد يدي لغير ذي الجلال عندي من الضلال والاذلال لالا من اعتدال جلقت لا مد يدي الى سوى المغني اتداء في السر والعلن عندي اعتداء من نون جوخ مثال تي اي نيانم نيان بو سيل لا موي نيان دي غنا خم دو باي دار تي عبود يدا كوي فاس لولو واي نيانم ييب تام لو باخ دا في تاي li mu ñaan mooy gën a jege suñu borom rek daanaka lay gën a gis nga léeg-léeg mu wax ne an ka raditu daxtira bin rajiya min ka rujui fi duyóori naajiya habliya fii dal yowmi yaa wahaabu yaa man lahu iyaabu wa dahabu wilayata taqribi wal isaali loolu mooy ak ñaanam gën a jege suñu borom taala gën a jaxasoo ak moom gën a seey ci moom waaw te ak ñaanam day matale mënoon nañ cee ni misaal waaye waxtu yi du ko maye waye bu ñaané ba nopi ndam koy tejé mo bo diyé da cey fël joxana ko misal ci ak durru samin masal ci mujiga bu ñaané ba ñaan nga jeex ya rabbi wala ya sayyidi inni daawtuka kama amartani bihi wa kuntal akrama falistajib jami'il فليستجب ولجميع المخلصين كما وعدتنا waghfir dhunubi wa taqabbal 'amali non la ko topé waye ba ag nak ci law lam takun akrama min kulli karim لما دعوتك وانني لئيم لكنني لما غدوت أفقر من كل ذي فقر وكنت أقدر من كل قادر أتيت بابك تق جيغا خاني مو نيك سي مان سي واخين رك مام دارا تخ كو waaye dafa ne xeeb gi ma xeeb sama bopp ak taq geeg ñàkk gi ma ñàkk dal. jàpp ne yellonte naag di taxaw fi sa kanam daal xam gi ma xam ne yow yaa gën a baax ñëpp tabe ñëpp moo may taxaw sa kanam waaye yow bi nga nekké di akramu min kulli karim man ma nekk di afqaru min kulli di faqrin ah léegi loolu konak, ma ñew ci sa buntu bi wax ne ko nak fa in taruddani fa ma li siwaak bo ma daqé nak amu fenen fuma jëm ah, yow rek fa nek di diyaale gogi mo nañ ci wax lu bari eh, diyaale yu bare la xam nga maanaam déyaale sax beneen buntu la fi ne ci ubudiyya mooy déyaale déyaale bokkut ak ñaan déyaale mooy jàmbat suñu borom sa bopp loolu sëñ bi da ko daa def lu bare bare bare léeg mu ne naajaytuhu maay déyaale ak moom te naajaytuhu te naajiyal xabiibi mustaxniyan bihi ani tabiib waaye léeg moom nag mooy déyaale ak man nag naajaytanii te naajiyalu qariibi man damay déyaale ak moom ci kaw ak cofeel waaye moom jege gi ma jege ci li diyalé ak man diyalé gogi wax nañ da nañ ko gis mu julli gé tok fa di diyalé ak suñu borom ba fajar señ Modou xëri sil net la né gis na señ bi mu julli gé tok sol lu tal jublu penku dalal ay loxam ba ñël ba fajar mu dogo a jóg yu bari ci la ko defee nga xam ne da koy feeñ bu mel matlabul maqr al asna joxe ko misal batay ay gis mi wax ne ya sayyidi أنا الفقير الفاني وإنني العبد الحقير الجاني أنا اللئيم البائس المسكين أنا الضعيف الجاهل المدين أنا الكسول العاجز السئيم أنا البليد المجرم المليم أنا الأكول وأنا البطال وإنني النائم والقوال نون لكو ko toppee waaw léeg-léeg nga gis ci biir déyaale gi mu muy لك جثتي لك نيتي لك غربتي ومواطني والمنزل لك ملبسي ويراعتي مع لوحها ولك المداد ومشربي والمأكل عندي سيت دارامم جخنا لا خول بي جخنا لا جيم جي جخنا لا ييلي توكي بي ماي توكي جخنا لا كو ديس بي مو ديل سي تام ليپ جخنا لا كو بيرل يي جخنا لا كو ريو بي جخنا لا كو تشول جخنا لا كو خليمه يي جخنا لا كو داجي جخنا لا كو xéewal yi añ beeg reer bi jox naa la ko wa mashrabi wa lakal midaadu wa mashrabi wal maakal te diyaale googu xaalu ridaa da ci feeñ gis ngeen bi muy dem ci géej gi nga xam ne moom loolu moom ku koo xam dañ lay waajal yow war laa yóbbu nga am jafe-jafe nguurug réew bi bu doon keneen moom jeneen yitte ngay am waaye xasida gam ca def ba muy dem xasida sant yàlla la تموي أسير مع الأبرار حين أسير وظن العلا أني هناك أسير كبير قصير قصير قبعني قصوري خلق والأهل عني تفرقا أنا كسما كريب دنجا ويتنا نتاي سما نجابت جب التسارو نن وين دجارات تكني غر غرور الورا غر النسارة بكي به وظنوا ظنونا وظنون غرور مانام سيتاني مو نخ tubaab yi ñu jàpp ay jàpp yoo xam dara amu ca waaye bayit wa ca topp rek daa daal di wax ne li rabbil tifaati laa lahu ma delluwaat naa ci suñu borom tabaraka wa taala taiban lahu min aldambi wal afaati wa huwa gafuru lahu tubtu min aybi iltifaati li gayrihi taxaw gi ma taxaw di wax naan kii def ak kii difut iltifaat boobu ne maa koy tuub wa minni lahu ahdun alayya damiru ne su mu ne fujitu bi bisirin منه أبغي شكره وفي القلب من رضوانه ما أكنه معنا دي على قوام قصر يكن منكو تكيم أي تف كاتنا يوم تف كي عبود يوم كن منكو مثال بكنا تلي ما درجال عبود يقعد ما يتوب جمدون توب وقتون دير سن برام توبت إليك الآن فغفر ذنبي به لولو أمن قصر يوم توب كسلا من التحفة الأول نحن نتي تخميس قصيدة شيخ أبو مدين الغوزة من قصيدة قيمه وبعد فالقلب مني اليوم ذو ألم من كثرة الذنب والآفات والغمم فقلت ذا توبة لله من ندم أستغفر الله مجري الفلك في الظلم على عباب من التيار متتم جسمي ضعيف لأسقام تحل به وبان ضري وقلبي غير منتبه فقلت مستغفرا ربا ألوذ به أستغفر الله منجي المستجير به إذا ألم به الضر من الألم كادت ترين على قلب الذنوب وعن خوف ونور الهدى عاقبه كل زمن فقلت طالب فقمت طالب غفران الغفور اذا استغفر الله غفار الذنوب لمن بالانكسار اتى والذل والندم نون لاكو توف موي قصدي بو ييمو سي جيغلو سون بروم تبارك وتعالى نيكون كو خامني وقتو ني دا گاو سي دلو وات سي بروم لول سي مظاهر عبوديه لا بوك موم سي موم نيتلي نا بوم ني سي گيج امنا بيس مو ام بن تواب بو خامني دا ام لوم ديگون beneen waay te jox ko ko te fekk sëriñ bi nee na man nii sax tubaab boobu digg na ma loolu mooy ab ab pot la waaw boo xam ne day def day def euh, day def lat koroñ waaye nee na kee koo dig mu acca yaakaaram te man man bàyyiwuma xel sax digg mu ko de nee na xuloo gi ñuy xuloo rek ñoom ñaar ci sama wet dama ci delu delluwaate ci sun borom xamni sun borom rek momata yakar rek momata weru fasasi neena ci la tàmbali xasida gi tambali ala innani usni ala khayri munimi wala ashtaki lil khalqi min faqdi an'ami fa man dannani fi gurbati ذا تذلل إلى غير مغن واسع فهو قد عمي له أشتكي ضعفي وفقري وغربتي وأرجو رجوعي عاجلا خير منعمي شكوت له عجزي فأشكى وكان لي بما فاق ظني فهو أكرم مكرمي وشنو برم كيسي لا ويرو تشمم ممرك لاي جامبات سمك دويلي اك سمك نياك اك سمك تومرانك ذل العبودية يتم xam nga ubóode dafa am zullu boo xam ne maa ngi ko doon misaal léegi boo xam ni moom moo gën a neex ci ci nit yàlla yi loolu sëñ bi day gis moom da cee saxoon moom zullu boobu yi maanaam yi ñuy wax yëpp loolu lay tegtal te wax mooy li mu wax ne zulliya lil fardi alladi lam yalidi wakkiirlu ci suñ borom itam nga xam ne moom waxtu ne dafa bàyyee boppam ak suñ borom anta wakili fa alayka attakil nga xamne dafa wax ni man damaa doyloo sun borom wéeru gi ma ci Antara ci mom da doy daa doy sëkk antal wakilul ladhi di iktafaytu bihi ci ngeel benam magi kajoor dajal nañ daje woon nañ bëgg ko bolé buur bi moy len qalu li yarkan li abwaabi salatin tahuz jawaiz tughni kullama hin fa qultu ya rabbi wak bihi daje nañ wax dal bo boo àndeek bi da nga am li da nga am la man len ah, man kat ya rabbi yalla doyna ma sëkk ولست راضيا غير العلم والدين موم دا باي وانو سون بروم بوكم ديغ واخ نيكو لو جيفاندي كو سي مان رك نيهنا ما سي جوم موي كو خم دار نقل وكو فينا لو خيو داي خاب داي جابني سون بروم مكو ريف دا واخ ني لا شك ان كل ما ادخلتني فيه فخير لي يا ذا المنن وكل ما اخرجتني منه فذاك علي ضر يا ربي ان اعطيتني فشكر وان منعت فردا وصبر ngir gëna kek ta waxtu wi ñu féetal léppam bok borom subhanahu wa taala itam nga xamne nga xamne lahu ufawwidu amri ha huna wa ghadan doylo sun borom defon ko muy takam inni jaaltuka fi daareeni ya thiqati hisnan hasinan fa kun marjaaye yallaahu musta jàmbat kumay borom boromam itam mom rek dara jëflanteel ñu ñëw ci ubudatu ubudatu moy mo gëna mo gëna xóot mo gëna sel mu gën a kawe mu gën a màgg mu gën a sew itam te mooy gërëm loo suñu boroom goo xam ni day dem ci dayoo di sàkku ngërëmam nga xam ne moom dara wax ne man mënuma jengati jëm ci lenn loo xam ne du gërëmloo suñu borom lastu amiru li siwa maa yurdi rabba samawati wa rabbal ard nga xam ne dara wax ne adxaltu nafsi fii ma anta raadiya lii fak fi nii kulle maa yuf nii ilal dama jël sama bopp tàbbal ko ci biir lu lay gërëm loo fa su ma yéenee def lenn loo xam dana jiyoog luy maye sa ngërëm yasuumu kulli an siwaari daaw sama lépp daa maase woor ci bàyyi lépp lu may lu may gërëmal su lu gërëm loo suñu borom daa sax ne euh, bal xaajati irdaau dil arsil alim sama yitte jenn la mooy sàkku ngërëmul suñu borom tabaaraka wa taala léeg sax mu ne maa ngi tàmbali mbir mi waaye sharaatu fi irdaai rabbi naasi moo tax muy jëmm joo xam ne mosula jàmbat moom sax nettali na moom sëriñ bu mag bi li ba mu nekkee ca géej ga daa am jamono mu nekk ci bërëb boo xam ne yàgg na fa te boobu àll bi la dara wëru ko moom ci wax na ne bërëb bi mu nekkoon bërëb la boo xam ne dara wëru ko am na fu mu ko nettali wax ne dara wëru ko nee na ba mu fa yàggee nag dem ba mel ne bakkanam daal xaw mel ne lu nar mbir mi xaw a naqar ci moom nee na façage suñu borom yabalal ma ay xeeti xorandoom yoo xam ne daal ni ñu doy waar ci mën a matt ko nag nee te sëñ moom bu ko dara dee matt fi du ko faxas wax ne néegam yooyu nga xam ne daa am li ñuy wax ay fel am na ko ko mas a laaj ndax maa lu tax daal moom fel yi dañ ko daa sam ba doo gisati lu bokk ci jëmm ji fi ne waaye li tax daw ko dàq daw leen fal da xam ne diggante bi ngay wëlb ci kii bëgg koo bëgg koo bëgg koo faxas sa xel mën dem ci lu may yàlla xam kooku te loolu lay bañ wax na ne fi ne ci ma joxe ci misaal rek benn bis nee na damaa defar samay sama jàkka joo xam ne ñeent bant la foofee ca Gabon nee na ki jiite camp bi ñëw fekk ma fi mané ne jaxase bant yi sànni ko feulé ne fi jàkk amu fi bu yàq soldaar né nee ñu wax yelli ñëw yelli ñëw di xulo mom ci lool ne ko bàyyi ko moom buntu bunt fi ko def ni jottu wut ak kèn dara ñu tam di jàppante né takkusaan ba timis ay né fi ñi wax né na dama daal di tàmbali rek di way xasida go xam ma ko tënkee rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha moy raditu 'anil mawla تعالى الذي ربى فؤادي واغناني واكرم به ربا معنى قصيدك قصيدك غرم سن بروم تبارك وتعالى دون كو خم دا دغمل سن بروم تي ليب مان ليب ما ماسي دغمل سن بروم تبارك وتعالى واخني من سما جيم دما كو جيل سن بروم رك وجهت وجهي له والقلب منكسر وجهت وجهت وجهي له والقلب منكسر عبدا له في اغترابي ثم في داري waxna na ne loolu ko ba mu fees yi moom wajjahtu wajhi jahilan faqira lillahi abdan Khadiman haqira wal waxi ubodee jooju wax ne léppam moom maase dëgmal suñu borom tabaaraku taala da wëru ci mom yaakar ko jàppoon ne kenn wërta yaakaar keneen ku may borom daa rajaun li siwaka wujjiha ya khayra man rajaahu man tawajjaha dawut a gestu nanguwut a gestu itam leneen lu mooy suñ borom daa muslu sax ci gestu leneen ab doxam it jëm ci suñ borom it moom day wax ne foo ma gis may dem rek ci suñ borom laa jëm asiru ila dil barri wal baxri aabidan wa lastu ila al fujjaari awdu asiru suñ borom rek ci la jëm waaye dox boobu nag dox bu yéemu la boo xam ni mooy lu mel li mu wax ne fa qumtu majzuban ilayka minka bika alayka xam nga dox boobu génnut suñu borom tabaaraka wa taala ba ni mu àggee nag wax waaye ba mu àggee gis nga waxin waxin ubudi ubudatu la itam ba tey ak mooy jiitu ka xumran mudniban kasuula daa tawbatin laka fahab li suula jiitu ka kay akuna min ibadika munsalixan min aadaika bay lépp ak si fi yow Sëñ mooy koo xam ni lépp da ko daa askan suñu borom dawul nangoo moom dara dana wax ne man wa huwa taala quwati wa xawli pexe ak kattan ak man-man loolu suñu borom moom ci la dellu te mooy samay pexe mooy sama kattan moo tax léppam da ko bàyyi woon ak suñu borom kulliyati jaaltuha lillahi wadiatan wax na ba tàyyi ne jox naa ko sama lépp loolu moom bari na lool ci mbindam ataytuhu kulliyati bila nizaa jox naa ko sama lépp te lu ma ci xëccoo dara لله كليتي عبدا له أبدا لك الدهر يا باقي بلا مرية كلي léppam da koo joxoon suñu borom aslamtu itam gis nga da nga koy gis ma aslamtu mooy damaa jébbal sama lépp aslamtu kulli li rabbin labtidaa lahu aslamtu kulli li rabbin jalla an waladin aslamtu kulli li rabbin jalla an garadin ba tax na geesu nee na ak dëgmal suñu borom rek laa ko def lakaltifaati wa iqbaali bila madadin tu du ma tàyyi mukk léppam ba ba ci cëri boppam sax léeg-léeg mu di ko lim di ko jox suñu borom léeg-léeg mu ne sama dund suñu borom moo moo ko yor moo ko moom moom laa ko jébbal léeg-léeg mu ne sama ruux lillahi rabbil alamina ruuxi ilayka qalbi wa jusmani kadaka yadi laka jaaltuka yaa xafidu nafsi wa dixal maanaam nga xam ne léppam da koy lim benn par benn di ko jox suñu borom tabaraka wa taala ba ci ay waxam lahu kalaami wa lahu iqbaali wàqante itam nee na moom rek laa koy defal lahu xitaabi kulla shahrin wa sana sama xelit moo moo moom laa ko jox lil mutakallimi saraftu aqli fikri wa qawli wa amali ila al baari samay xalaat ak samay jëf ak lépp xawaatir yi itam mooy yi ciy rotit ci moom laa koy delloo lahu xawaatir yi lahu anfaas yi pas-pas yi ma am ak jëf yeeg jaamu yàlla gi lépp it nee na moom laa koy delloo laka aqaidi ya maa al aqwaali laka aqaidi مع الأقوال وجملة الأفعال والأقوال والأحوال له الدهر النيات وعلمي وخدمتي وروحي وجسماني وكل بلا سكر لبم أكو جخن خم خم يال بيوت دارا باتي صح ييغا خامني اي معنى لو مل اك نياك دا انا سما نياكيت موم لا جخ فقري الى الواسع الغفار ذو القدر تي موم رك لاي جيم دما ديك له dhahabi wa bihi ruju'i sama dem ci moom la aju sama dellu si itam ci moom la aju inna dhahabi wa iya wa iyabi minhu lahu wa innani wa inni qad raditu qad raditu anhu lahu irtihali wa ilayhi sakani moom mooy koo xam ne musta sàkko ci kenn lu may suñ borom ci kenn lenn lu may suñ borom ndax jàpp na ne keneen moomu dara ku may yàlla ba muy dem ca géej ga mag magi njàmbur yi daje nañ foofee ca ndar sëñ mën la mu ñëw da nga ne nettali na ko bëggoon dox tànk jàmm ci diggam ak tubaab bi waaye nee na sëñ joom moo leen nettali na leen dama leen wax ne xallu bayni wa bayna rabbi wa huwa arafu bii minkum yéen daal am ngeen jaaraama dem leen toog rek te ngeen bàyyi sama digg sama borom moom bu leen ci jéem dara di jéem a soppaliku ndax yàlla ndax yàlla moo ma gën a yërëm ci yéen te gis na li gis nga këram itam yëpp këri suñu borom la dëkk bi mu njëkk sanc mooy daaru salaam waaw Tuubaa réew dëkk yi fi ne ci biir mooy daarul Quddoos ak daarul alimul xabiir daarul mannaan dégg nga daaru rahmaan daarul karim daarul muati daarul qadim da daar yëpp suñ suñ moo suñ a ko te yemul ci mbiri boppam waaye masalan tey jaam ñeeg lañ am lépp dayoo xam ne moom moo ko moom suñu borom lahul baraya lahu afaaluhum wa lahu jëllal wujudu alladi qad saanahu qidamu lahu lsamawatu wal arduna wa ma baynahuma lahu taala al arshu wal kursiyu laka ilahi l mulku mithla al malakut lépp dayoo xam ne moo ko moom nungul keneen moom leneen buur yi itam nekk ñu jàpp ne am nañ luñ moom dara wax ne lahul muluku wa lahul atbaaw buur yeeg ña ngi jàpp ne ñoo leen yilif ñu ñëpp yàlla leen moom waaye loolu téewul liko yàlla sante mu war ko def mom da koy def jottu ñu won dara waye day wax ni itam limay def itam ci mom la koy jëlé itam akhasu ma awjabta aw nadibta alayya ya mukarriman qarrabta ya nga xam lépp lu muy def ci jëf yi itam da koy def ci kaw katanuk sun borom tabaaraku taala tarku tadbir itam tadbir mooy jéem a wuti pexe ak lijjanti mbir loolu lépp da ko bàyyi woon ak suñu borom tabaraka wa taala da wax ne xarajtu min tadbiri nafsiya liya ila alladi dabbartahu li ya rabbiya dama sama lijjanti bopp dem ci sab lijjanti yow loo ma defar rek mu neex ma léeg-léeg sax moom xasida koo xam ne wax ne bi dil xasidati taraktu jëlba fi ne bàyyi naa ñoddi nag ñaan dara xëcc len fi ne ñaan yëpp ñaanu ubodiya la du ñaanu bëgg daray adduna wala leneen lu may suñu borom tabaraka wa taala ndax danaa wax ne fa maa ilaya suqtahu fa shukru fa shukran wa maa xabasta faridan wa sabra loo ma jox rek ma sant loo ma joxuti ma xam ne loolu moo gën fi ne bi ñu ko waxee nan lañ lay ñaanal dafa ne da nga wax ne da ngeen may ñaanal li ma yàlla tànn rek mu jox ma ko qaada lahu lahu maxtaarahu lahu moom moo tax murid yi suñu lañ mbàkke mu baax moom tëggee ko noonu qaada lahu lahu maxtaarahu lahu mooy li ko yàlla tànnal yàlla na ko jox mooy koo xam ni lépp da ko daa askan ci suñu borom tabaaraka wa taala lim amal boppam xam nga ku ne xam na ne moom coono bi mu def ci jaamu yàlla ak dëgmal suñu borom nabbahtukum maan ala kaddin badali daal an araaridal mu abada coono bu ne daj na ko loolu ne daj na ko waaye teewut loolu yi mu daa def lépp day wax ne da koy delaat suñu borom sabartani maanaam muñ gi muñ lépp lu xaraam bu doon keneen mën naa jàpp ne moom ci man-mani boppam لا لا مني بديف الحرام يعني أنا سبرتني عن الحرام قبل وفتنة الناس محط والكبل سبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا سبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات سبرتني على امتثال أمرك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي يعني مم لب دكوي دلو تسنبرن تبارك وتعالى ويرجي يرم سابق أمر يعني أصحني يوم الثلاثاء الأحد الأح... يوم الثلاثاء الأحد أصحني يوم الثلاثاء الأحد سن برا مين يعني كن لا جهنم ويرجي يرم تأتي بيسو ألتنبي بيسو ثلاثة بي تخلية التخلية يب جسنا ده كوي دلوقتي سن برا بس يدد جيم دد أدنى يعني علمني الله بأن الدنيا فانية سن برا ما ما خمني أدنى أمور سلام ما ده ما بايكو لكو عربي nga xamne nak da ko xereñ won gën ko xereñ sa ñako namp gis nga lépp da ko da del suñu borom ni suñu borom momako xamal allamani nahwa maa al arudi man qada lil adama fi qaridi madda li al bayan bil maani dhul maanawiyati fiqu fiqu fiq bi nga xamne tay mo ci gënoon a géeju ñëpp nak mom mazahib yëpp la geejju won gis nga teewul da koy delo ci suñu borom warastani fiq al imam malik lima am ci fiqu malik ci ndono te keneen amu ko je lolum sama wax bop la لولو خا نيو يامو يامو يامو جوخ نفعتني لي كنت بالمنافع وقلت لي فقه ابي حنيفه قد قلت لي فقه الامام احمد كون لب با تي موتش جي موتش اك جار جي جار اك نيكو توب تي بغل لنا موسل لولي دا خا ني تي سون بوروم لا امي نجاتي وان جاي وحوز استقامه احاورها بالله moo tax mu àggoon nag ci see ci suñu borom see léppam ci suñu borom ribtu anil muluki lil mumalliki loolu la ñu ko wax maanaam seey naa ci suñu borom fàddu naa wulis buur yëpp waaye léeg-léeg mu ne fàddu naa ribtu anil akwaani fil mukawwini loolu it mënoon nañ ci wax lu baree baree bari nee na suñu borom moo ma moo ma moo ma jël seyal ma ci biir boppam loolu nag wax wax wax am na maanaam moo xam mu leer la mu dëpp ak tawxid ko kenn jéem a sikk sàkk waaye li ma xam ne xëyyabanil badiu fi l badii xam nga gis nga ci alxuraan nga gis ne wa ma ramayta is ramayta walakin allaaha rama allaahu rama te rasulullahi lañ gis mu sànni yadullahi fa yubaayi inna alladina yubaayiunaka innama waxul ka annama innama yubaayiunaka maanaam yu mel noonu rek lay jëm moo tax mu mësul a gis keneen ku may suñu borom léeg-léeg mu ne huwa alladi lam ara gayrahu wala arahu fi cheyin mbir mel na mbir moo xam dinaa ci gis keneen ku mel suñu borom amul waaye léeg-léeg mu ne léeg-léeg fii googu mu dindi ko ci wax ne las ana lam ara lu wax ne anta alladi lastu ara siwaaka léeg-léeg mu ne lam ara gayraka wala arahu huwa alladi lam ara gayrahu wala arahu waaw nga xam ne suñu borom rek lay bàyyi xel moom lay jëflante kon loolu mooy topp tomb ñaareel bi ñu ñëw ci ñetteel bi muy mahabba bi cofeel googu xam naa du lépp du xaj Sëñ Tuubaa mooy koo xam ni bëgg gi mu bëgg borom moom dañ ko ko mooñaale lool la sëñ Basiir wax koo xam ni ba mu demagut li ñuy wax daara la tàmbalee def xiyaamu layli te xiyaamu layli moom ñi bëgg yàlla rek ñoo koy def suñ sëñ Basiir nee na ba mu xamee ne mooy yàlla dalay soree la suñ borom nee na moo tax ba mu feeñee rek daa muñ lépp loo xam ni daa xeetoog may yàlla ak juyoog ndigalu suñu borom tabaaraka wa taala moom ci wax na ne ba mu ba niñ ko noppee gisee mësula sàkk lu may borom walam azal mundu aqaltu taaliba maarifatin billahi ba ma xelloo ba léegi suñu borom rek laay jéem a xam fa jultu ulama wal awliya bi wa amali wa waxna itam ne ciofel sawq moy namm suñ borom xam nga ki nga bëgg te bëgg wér sa yitt jëpp mooy dem fi mom shawq bobu nak waxna ko ba ci bir qasida yi ciofel gi ma am suñ borom waxne shawqi liman gharbun lahu wa sharq muti alladi fihi wal khawf shawqi wa wuddi wa mahabbati maa liman jalalan wa jamalan jamaa أنا شوفين أك سوق بابو أك مح بق مم سون برم رك لا قرف وجهت كلية ذا قرب من الله خلا وحبا ولا شوق إلى الله برا مسل جنگ جمتي كنن كما سون برم تبارك وتعالى هو الذي لست لغيره أمين دلا وخني سون برم تبارك وتعالى مام رك لاي داك مام رك laa doyloo itam ku may jàpp ci moom laa lay jàppe bihi uaadi wa bihi uwaali ku may bëggit mooy tax ma bëgg la xubbiya fillaahi wa buxdi fii ñaan na ba tey suñu borom nag may ko xam nga bëgg boo kenn ko ne mën naa am dëgëru fit ne man kat bëgg naa yàlla waaye moom dañu gis muy ñaan suñu borom ngir mu may ko cofeel googu ndax cofeel googu du lu yomb bëgg yàlla du lu yomb loolu ñaan na ko ba tey waliya hëb kaw nii xabiballaahi loolu wax na ko ba tey bani ko sun borom nak maye ciofel goog yi mu di ko dund di wax ne man fi ne sun borom womat gi may womat xecc gi may xecc lepp ci kaw ciofel la tege yaquduni lillahi hubbun wa jamal ciofel ak jamal mom la ma sun borom di tawfiqal ma ci dox moy sama dox wax sama cofeel gépp sama bëgg géppit ci suñu borom lay dellu xubbi lahu fi sirri wal jihaari loolu wax na ci lu bare bare bare wax ne mooy diineem itam diine ya xubbu man ilayna ahmada arsala xaamidan diine ya xubbullaahi ma xubbi alladi ida jamaa ida qamaa loolu wax na ci lu bare bare wax ne itam jaamu gi muy jaamu yàlla ci kaw ak cofeel la teg yaa xayra maabudin bi xubbin ubida wax na ba tey ahbabtu rabbal alamin maanaam maxaani yooyu moo fees dell xasida yi moy bëgg na suñu borom léeg-léeg mu ñëk ni man de bëgg na suñu borom way la rek mu ne bëgg gi mako bëgg rek du bëgg ku mu jug man ko jëgg de bëgg de man bëgg gu wayef de ahbabtuhu xubba alladi bihi araf hubbu arif hubbu ko xam da xam suñu borom xam deug deugam ko ke man bëgg gogi neena mom na moom la suñu borom taw fee xam moo tax wax ne man kon li ma am doyna ma sekk فزت بحبهم واني مكتف بالله فالمعطى كفافا يكتفي غينا امنا لوي سيك دال ناتي ييب ناخ سون بوروم داما كو دويلو ناخ موم رك موم لا بك موي سما جوبلو واي تام موي سما خممتيف دي قصيده يي لا نغيس ولا با تي تري خم خمي وبعد فالقرد وجه الله معنى واخني سون بوروم رك موي جوبلو واي واخني مو غنا ياي تي مان لا لا صاح مو اغ تي ne sun borom mom la gëna bëgg ci lépp yaminu rabbi in rabbi ahab li min siwahu wan nabi baadul ahab da mu giñ ci yàlla ne man de yàlla de mom dama ko bëgg mom daal moom a gën lépp mom la gëna sopp ci lépp ginaaw ba nak rasulullah mom la gëna sopp ci mi def le nak mu ne wallahi inni yakhillu lil ilahi bihi xibbun lahu duna kasbin fihi ajraahu fiihi ajzaahu mom day jëm joo xam ni sëñ Basiru nettali na ne am na benn tubaab bu ma sa nekk moom fii njëreem am lu mu bëggoon ci moom di ko ca dig nag ne ko nag boo ma ko defalee dinaa fexe bañ woye la nangam sa dëkk bee ci tuba waxa wax ba àggal sëñ bi ne ko ayuha rajulu utlub ma tatlub yaa man fi nafsi xaajatun yuridu qadaaha ginaaw mu ne ko fa inni ma ahbabtu shay'an gayra allahi tabaraka wa taala min yawmi aqaltu ila mawqifi hada waqad xasaltu alayhi kama uhibbu wa axda ne ko yow ginnaaw da nga amee yittee ki aajo ak ki jafe-jafe yow sàkku li nga li ngay sàkku rek ma dimbali la ma ca man <laughs> waaye man ba ma xelloo ba fii may waxee yow mosuma bëgg lenn lu ma yàlla ne ko nag fii ne nag am naa ci doy sëkk nag ci suñu borom moom loolu ci njëriñam loolu moo tax dara wax ne moom karaamaam genn la mooy bëgg gi mu bëgg suñu borom karaamati xubbul ilaahi loolu wax na ko ba tey karaamati xubbul ilaahi wan nabi daw danaa wax ne suñu borom du ma ko jëndeeg dara laa usriku dëhra bi rabbiya wala abri bi gayri alamina badala waaw waaw wala abri bi rabbil alamina ba badala du ma ko jëndeeg dara du ma ko watteeg lenn itam laa abtari bi dil jalaani iwadan wax na ko waaye danaa wax ne fi ne man kenn rek moo ma moo ma téye ci loxom moma jàpp fi ne tubaab yi jàpp ne dañ ko téye woon day wax ne ñoom dañoo xamut dal alladi qaddanani asira gayri alladi yasiru asira man kenn rek moma jàpp muy sunu borom tubaab bi Allah ñom dama nek ak ñom rek waye séquma ak ñom dara le sa mu wax ne ñom sax nekkuma ak ñom alimat al aadaau anni indaka la indahum busharatan li jundika tubaab yi xam nañ sax ne man dama fa ne rek waye nekkuma ak ñom sunu borom la nekkal loolu yi sax léeg mu wax mu ñaan suñu borom ne ko nag ma ko xamalal tubaab yi ba ñu xam ne man nekkuma ak ñoom wa allimi al aadaa anni indaka laa indahum busharatan washhad li al yawma bi anni indaka wax na ko ba tey loolu yëmu ci tubaab yi waaye ñu baax ñi sax day wax ne ali allamta waaw léeg-léeg mu ne ko maanaam léeg ko doon ñaan ngir suñu borom xamal tubaab yi ne leen kat kii mi ngi fi yéen waaye man la nekkal waaye dem na ba ne allamta aadaaka anni xabibu laka xalilun daa ginan ani tabib waaw kon noonu la demee woon nga xam ne daa génnoon ci lépp lu may suñu borom tabaaraka wa taala bëgg suñu borom jeex ci moom seey ci moom lépp loo xam ne day yokk bëgg yàlla mu di ca def kem kàttanam jàppoon jëmmi suñu borom mom da jàpp ne xéewal la go xamni man yàlla nek gi nek di yalla lélé mu sant yàlla ci am gi suñu borom am maanaam wujudam gi ak nek gi fi ne di yàlla mu ne alhamdulillahi ala wujudi khillan wa xibban faza bi tamjid bi tamjid nga xamne nu ngutoni kenn umpulé bëgg gi mu bëgg suñu borom tabaraka taala loolu dara ne ñëpp ko xam te ñëpp ko wara xam itam dara wax ne fàddu gi ma fàddu suñu borom it fàddu cofeel la am lool ku ku amut bëgg ko mus dara ci bëgg yàlla mënoo xam xeeti fàddu ko da wax ne ribtu ila ila ilallahi min al arbab wa li muhammadin ma al aqtab gaybubat al hubb gaybubat al hubb ana fàddu cofeel la ak na ci wax ne man dama lab ci bëgg sun borom tabaraka taala ghariqtu fi bahri mahabbati al jalil maanaam bëgg suñu borom ak géej la gaa ñi sax ci ak géej lañ koy misaal dañ ci ñëw ci kanam xam naa ne incha allah maanaam lim daa joor waxtu ne nga xam ne moo ko gën a neex ci waxam nga day wax ne sama léppay maase di ko wax mooy yaqulu kullillahu rabbi sarmadan sama lépp day maase wax ne allahu rabbi sarmadan abadtuhu daa xidmatin li ahmadan nga xam ne ci njëlbeenam ñi nga xam ne ñoom la dundaloon te xamuñu ko dafa wax ne ñoom li tax ñu jàppe ma ku ënt ak sago sagom mooy bëgg gi ma bëgg suñu borom rek xaalu safihun li xubbi xaaliqi maliki ndax man daa ne suñu borom ci ko mënu laa yëgee ak dal ak jàmm moo tax moom rek laa mën a nekkal mënumaa nekk keneen lakka fuaadi ya ilahi itmaan nga xam ne dawul nongu ku taqal dara lu dul noona ci suñu borom loolu moom wax na ne ba tàyyi ne dababtu an xadratihi al muqaddasa xadraam bu sell bi pakk bi nga xam ne dara du ma romb di agsi fi moom dababtu li gayrillaahi maa lam yaliq bihi dababtu an xadrati rabbi mudda bi faydihi alladi li madda ci misaal qul huwa allahu ahad kuy jàng xasida seetlu nga mu di ko tudd lu bare bare bare qul huwa allahu ahad dafa am li buxaari net li ak muslim ne dafa am koo xam ni danaa def ci tukki danaa jang kul wala ahad rek saaru suratul ikhlas sahabay yi wax ko yoonte bi ne ko mom de kul wala kul wala ahad rek lay julle yoonte bi wo waaje ne ko waaw lutax nga ko julle do jull te do julle leneen mu ne mu ne ko kul wala ahad de day sifatu rahman wa ana uhibbu an aqra biha dama bëgg di jang nak lim nek di melaw sun borom tabaraka taala te sun bo yonente bi da ko saxal ci lolé wax nañ ci hadith bu amé wax ne yahudi biñ ko waxé ne ko siflana rabbaka melal la suñ borom nee na ca la suuratul ixlaas wàcc qul huwa la ahad suñ mag bi nak day gis qul huwa la ahad moom day melni moy léppam mom léeg-léeg tawhid yi nga xamné mom lay mom lay teug ak liggéey day wax ne ci qul huwa la ahad laa koy defé zintu bi sirri qul huwa la ahad xasaayid tawhid teraanga yi ko suñ borom di joxe itam di wax ne ci sir ci alxuraan ci ci qul huwa allahu ahad ko joxe akramani bi qul huwa allahu wala teralen na ma qul huwa allahu ahad akramtani bi qul huwa allahu li ko suñu borom di jox lépp léeg-léeg mu ne ci qul huwa allahu dama ko joxe <laughs> nga xam ne qul huwa allahu ahad moom da koo neexoon moom am na saxaab yi boo wax nañ ne daa bëgg qul huwa allahu ba mujj yónte bi ñëw ne ko ah, jibril nuyu na la mu joy ndeysaan ne ko jibril fuma wara xam bo nuy mu ne ko da la sop ngir li nga bëgg xul ho la ahad ay dañuy gi Sëñ Tuubaa mom léppam xul huwa la ahad li jada bit tawhid rabbil ahad bi musjada li bi xul huwa la ahad ndax tawhid ci xul huwa la ahad la ko laa ko amee nee na li mu xam itam da suñu borom xamal ko ko lépp it bi xul huwa la ahad la ko amé allamtani bi xul huwa llahu ahad yaa xayram yée gi ko suñu borom yee tam dana ci ñëw léegi da wax ne ci xul huwallahu ahad la amee nabbahani bi xul huwallahu ahad bi annahu laysa lahu kufuwan ahad euh, tuub gi muy tuub itam léeg-léeg mu ne tuubu lahu bi xul huwallahu ahad léeg-léeg mu ne yaa rabbi qad aslamtu nafsi fi l ahad laka huna bi xul huwal ahad jébbal gi mën a jébbal sama bopp bi xul huwallahu ahad la amee ahyaytani bi xul huwallahu ahad waaw dund gi nga ma dundal wéral gi nga ma wéral يوم الثلاثاء الأحد مغتربا بقل هو الله أحد مب جما مب تلاخ ييفري تام نين لوب تي قل هو الله احد هدمت ما لي بناه من جحد من ضرر بقل هو الله أحد ذببت عنه كل مشرك جحد مجاهدا جهادي تام نين بقل هو الله أحد خير بما خير عن يوم دم أف لقوم ثلثوا الله الأحد قاتلتهم بقل هو الله أحد قل هو الله أحد خاني مومتي لي ديف لب موم مم لذلك من ملكني التوحيد رب الأحد مذ كان لي بقل هو الأحد كان لي بقل هو الأحد abqaani bàyyi gi ko suñu borom def mu am baqaawu itam baqaa ginnaaw fanaa boobu nee na loolu abqaytani bi qul huwa allahu ahad muy jëmm joo xam ne suñu borom rek la xam qul huwa allahu ahad ndax day sifatu rahman keroog bi ko buur bi wooloo sëñ mën la mi nett li na ne dafa wax ndaw la waxal amir bi ne ko waxal buur ba ne ko man de damaa rus sama tànk yi di ma di ma di ma di ma gàddu ma ciy dox di jëm ci beneen buur bu ma yàlla lal moo tee ma wuy si buur bi waaye buur daal moom mënuma ko dox mukk jëm ci buur ma gis loolu la rus naa ko sëñ Basiru nee mas naa wax taalibe yi ne koo ci xam ne adduna kii yii mooy sa yitte demal bàyyi ma fi daara ji koo ci xam ne àllaaxira sa yitte demal bàyyi ma fi daara ji koo ci xam ne adduna ak àllaaxira sa yitte bàyyil ma fi daara ji koo ci xam ne yàlla kese mooy sa yitte nag nga toog iradatu wa ci day mettit yi ko dal itam fi ne li muy metti nga xam ne noonu sax buñ koy nett li day metti ci noonu téewul fi ne moom maanaam yigu ko ngir ne ci suñu borom la ko la bàyyi ko xéewal la ko jàppe xam ngeen ne kan waxtu ya. kan bi jeex na wa mom moom mbirum sëñ bi diggante mom bi ak kii bi moom dara moom xajul ci am ab bis sax lima li ma ci dese yaakaar naa maanaam matul xosru li indi ciri kon loolu mooy gàttalu sëriñ bi nga xam ne moom dafa bëggoon borom saxoon ci di ko tagg itam loolu bëggoon nañ ci ay misaal sax ci borom ak léeg mu dëgmal suñu borom ba mel ne lu fàtte yonent bi suñu borom fàttaliwaat ko ak bànneexu bi mu doon bànneexu ci tudd tudd tudd suñu borom rek genn xasida dangay gis bu tuddee suñu borom ñaari bi ñett mu tuddaat lu mel ne xasida ak nuuru daari ni gis maanaam yallaahu yaa rahmaanu yaa rahimu yaa maliku yaa quddus yaa mukrim yaa fataxta baaba shukri lii wan xalaqa ne sut mu ne yallaahu yaa rahmaanu yaa rahimu yaa maliku ألهمتني وفقتني نستود نقدر Ya هو يا رحمن ya هو يا رحمن يا رحيم ما حنا تود تود سن بروم موم بان داكو داكو دون بانيخو موم ديكو خامني لم جفلنتك سن بروم سن بروم fay na ko ca ba mat sëkk lépp lu aj ci suñ borom yi noonu la ko alquranul karim te li tax ma bëgg ko mooy jëmbi suñ borom yi li wajihil karimi ahbabtul kitab da bëggoon itam weeru koor wi mu wàccoon uhibbuka hubba daati daa talabin inni uhibbuka hubba daati daa talabin da bëggoon itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir lim nekk ndawul suñu borom tabaraka wa taala diine ji itam noonu la ko bëggee woon néegi yàlla itam noonu la ko bëggee woon ay ndénkaanam yépp itam mooy dellu leen ci suñu borom rek tabaraka wa taala ba ni àggee nag ci suñu borom ba sës ci moom rek suñu borom fay ko pay goo xam ni bis dana ñëw xëy na ñu waxtaane ci insha allah waaye ni ma koy misaale rek ci li ma li ma am ci waxtu xam nga li ko suñu borom fay am na ci loo xam ne moom ci moom wax na ne ma koo wax sëñu ma ko bind am na loo xam ne sëñ naa koo wax sëñ naa ko bind am ci loo ne sëñ naa ko bind waaye sëñu ma koo wax tax na liñ ci liñ ci xam ak liñ jot a gis mu bind ko am na ci loo xam ne kenn ñi mu koo wax waaye misaal na ko misaalum moo xam ni day wane cofeel googu géejug cofeel googu yi nga xam ne ndam ca naanee ci misaal ci njëlbeen dañuy gis mu ne damaa mar zamitu wajitul baxra fil baxri xaalima li ko indi ci géej gi nee na mooy saarifan himmati li rabit raajiyan saqiyahu dama bëgg ñu nàndal ma léeg-léeg mu ne nabasu maa qad kaana indiya bi ma ladayhi raajiyan zulaalan shabima ndox mu sedd mii daal ndox mu cofeet nag géeji leer yàlla ci laa ci laa ci laa bëgg léeg-léeg mu ne naan naa nag jox nañ ma ma ma mos ci saribtu min min miyaahi nuurillaahi waaye léeg-léeg mu ne naan dal nañ may itam ñu ngi may jox nag waaw waaye ñi koy jox day wuute ci misaal rek saqaaniyal baatinu min miyaahi yi léeg-léeg mu ne al baatin jox na ma ci ndox yi léeg-léeg mu ne saqaaniyal mugni saqaan léeg-léeg mu ne saqaani yàlla yu ñuy wax al baaqi léeg-léeg mu ne saqaani ilaahi saqiya mugnin saqaaniya rahmaanu wa shakuru xane tey xadaraat yi koy jox day wute saqaaniyallaahu nag wa rabbiya shahid waaye dafa wax ne léeg-léeg mu ne jox nañ ma tey naan goo xam ne nag dara melut ni moom saqaa saqaaniya suqiyan lam yakun qattu mislahu léeg-léeg mu misaal ko ci kaas ne léegi jox nañ ma benn kaas kaas boobu mooy akramanillahu bi kaasil qawmi saqaani bi kaasil qawmi man nawwara alxijaab kaas bi gaa yi soxla jox nañ ma ci xam nga naanu cofeel da am benn télé bi ma si ñëw ci sëriñam ne ko man de cofeel bu doon eh, naan naa ci kaas bu fi ne moom mandi naa mu ne ko yow da ngaa gaaw mandi man sharibtul xubba kaasan baada kaasin ma ma tarawetu ma tawetu <laughs> maa ngi naani kaas bu yàgg ba léegi te mu mun man ni ma te naan gi jeexul sëñ bi nag léeg mu ne jox nañ ma kaas boo xam ni mooy kaas yi gaañooñee waaye léeg mu ne beneen kaas hada wali kaasa xaybihi llahu dëxëq kësu xëy bi kaas boo xam ne ndoxum xëy bu moo ca ne léeg-léeg mu ne kaas boo xam ne faydu moo ca ne nafaytu baatilan bi xaqin fa saxaq wal xaqu kësa faydihi lii dëxëq léeg-léeg mu ne kës bi xaq moo ci ne wali ilaahi kësa xaqihi dëxëq léeg-léeg mu ne min kësihi dixaaqi léeg-léeg sax mu ne kaas yu bari lañ may joxandoo ma di ko naanandoo itam ci wenn jamono ku uusu ko tasqini biha ndox mi itam day wuté lélé leeg mu ne saqaytani ma an bi ghaibika iqtaran lélé leeg mu ne saqaaniya alladi maxaayo min al fuyudi lélé léeg-léeg mu ne saqaaniya al habib ma an mutlaqa lélé sax mu ne kat fi ne may nañ ma ma ñëw deutam ci geejgi gi mooy kaas yi bàyyi nañ ko légui dama ñëw di deutam ababtu wax na ko ba tey min fuyudi ma idghayb ababtu min fuyudi min fuyudi man lam yalidi عبقت من فيوده والفيد فيه لالك منا كنا لك جناو نان دي دتب جموم يجنا لك نوا بن نع غسل مكتئن تبير خلبي سما جمرك <laughs> فجر ينابي عما الغيب في خلدي فبوغا غل لنج دي كمنه بولم كوب يما يوران يب يخنا ديال نج مكو لك بام فاس دفوكا يبوسي دفوكا يب ديال نج مكو لمانه الحمد لله الذي الذي لي يملأ جملة أقداحي waaye léeg-léeg mu ne ay ndam nag lañ ma duyal ndab yu rëy moom yoo xam ne moom kenn xamul tolluwaay ba waaw wa mala al jamilu lii xayra zuruuf waaw léeg am naa nag géej gu mag ci ci ci ndoxi gaay <laughs> xawaytu zulalan mu ne wali yanaabiu faydin axjala suxuba léeg mu ne wa fayduhu bi kulli sadri jaarin léeg-léeg mu ne axjala xat la muy ngoog mujj na mu ne mënatuma màndi naa mujj na mu weesu géej yépp wax ne jusutul buxuura rida lii man maana mujj mu di géej ba waaja ne ko cheikh mahamad lamin asirqiti ne ko qataatu ilayka albahra walbahru anta hu maa ngi jégalu baax wasalaamu aleykum wa rahmatullah Thank ci waxtaan bu solo rek dañu naan dañu naan lu ñu naan naan lu may def naan yi rek ko def mo bi rek do may def lekk lu ñu japp na wala ngay ñëpp waxtaan bi ak xam nga sey ci tuba sey ci borom xam nga bu ñu ci sey ci borom lépp yang Allah dimuliakan